production le promoteur de la jeunesse tey di dimanche 21 mars 2019 fii ci Sen Omar Diop il est 19 h minutes arbitre nee na sox pare na Ndandy Fall pare na arbitre sifflé minutes mbokki Leewtoo Talla Ndiaye machine bi moo féete suñu ndeyjoor Ndandi Fall moo féete suñu càmmoñ soq ngembam moo am lu xonq Ndandi Fall ngemb li am lu vert soq nga jiital tànk càmmoñ Ndandi Fall jiital tànk ndeyjoor soq Ndandi Fall soq xam sa Ndandi Fall Grand Yoff ñu ngi leewtoo mbokki Leewtoo ñaari xëy yaa ngi Leewtoo Leewtoo baa nga ca kaw Leewtoo ñoo ngay balancer ay loxo ca kaw Sokh meb na waaye demul Nandi Fall mu ngi déplacé wu latéralement Sokh nga koy topp Nandi ndax da ko a yëngal daw na cukki cukki <laughs> eh Nandi Fall Sokh combat organisé par Sam Production dem na bay bàyyi bëre bi waaye dara xewul arbitre nee ko dara xewul jàppante nañu Sokh ak Nandi Fall Sokh sànni ko ah génn nañ ci biti arbitre woowaat na leen loolu yamul de loolu yamul ah Nandi Fall arbitre siflawaat na Soxna Ndi Fall. boo ah, leen gisee xam ni sox déggal. moo ëpp doole wala daal moo ëpp jëmb. moo ëpp jëmb. moo ëpp corpulence. voilà ba pare mayu ko dara. nga ba léegi day dox taay buñ ko xoolee sox moo ko xaw a ci taay masse bi en ak poids ba xaw ma nag doole ja ci biir. sox mu ngay topp Nandi Fall. jege nanu saako yi. fa génne woon léegi. ah Sokh déclenché na door na Ndandi Fall mu rëb arbitre nee na nañu wat ci biir arbitre sifle waat na arbitre sifle waat na <laughs> eh Sokh Ndandi Fall combat bi saf na sap dafa mel ni trois appuis la benn loxo baa nga woon ca kaw <laughs> eh monsieur l'arbitre il est aussi bien que les juges Sokh ngi dox ci kawam mu ko naan taxawal ñu bare nee na ko taxawal ñu bare waaye attention Sokh meb na mbaa Nandi Fall du trompeur attention soq meb na Nandi ngay arrière Nandi Fall jege na saako yi attention déclenché na Sokh a ngi koy door Sokh a ngi koy door attention attention arbitre sifflé na. laa ilaaha illallah troisième avertissement Nandi Fall arbitre sifflé waat na ñetti avertissement loolu mooy 15 pour ci reliquat bi day dem soq demaat na soq ak Nandi Fall day waay arbitre bi jërëjëf soq na Fall lari attention Nandi Fall jàpp na tànk ba soq jàpp na ko ci kaw jàppante nañ ci kaw gis na na Fall da ko sac mais heureusement pour Sokh Sokh de ko nand Nandi Fall Sokh Sokh ngay defaru Nandi Fall jàpp na Sokh moo nu woon ginnaaw Sokh Nandi Fall attention jàppante nanu ndax buntu daa nar a am ndax buntu daa nar a am est-ce faqat xaju ndax faqat munta am wala wayale la wala mbot attention jege nanu ndengeñ ba bu yàggee arbitre wax jege nanu saako ya attention génn nañ saako ya ah arbitre waat na leen ci biir Talla Ndiaye Nandi Fall bëri nay avertissement arbitre nee na ko lu xew mu ngay seeti fajkat ba mu ngay seeti docteur ba ca suuf tànk ba am na lu cane ne waaw mu ngi noonu Talla Ndiaye tànk ba tànku Nandi Fall def cee gaañu def cee gaañu Talla Ndiaye eh combat bi na 19 heures 55 minutes le 21 avril 2019 SMI Omar Diop combat organisé par Sambay production Sokh Nandi Fall Sokh jiital ndeyjoor Nandi Fall jiital càmmoñ Nandi Fall moo ñu féete càmmoñ jiital tànk càmmoñ wala cànk ndeyjoor la Sokh fàtte ñu ndeyjoor jiital tànk càmmoñ eh jegante nanu Sokh Nandi jegante nanu seq na di ñu ngi lewoto soq na di faal ñu ngi lewoto kenn ku ne benn loxo ngay lewoto aj beneen ba soq na di soq xam sa cosaan na di faal Grand Yoff mbooloo soq na di ñu ngi lewoto kenn ku ne benn loxo ngay lew tak sama rom Nandi mépp na attention soq ah soq daan na Nandi Fall soq daan na ko soq daan na Nandi Fall laa ilaaha illallaah Alla Njaay bu xam sa cosaan daan na Nandi Fall fii ci stade Iba Mar Diop